alhamdulillahi allazi minna talab ikhlaasa sa'yin wa mura'atul adab man yansurul xuluuba wa saraa'ira duna allazi minna yakunu zaahira summa salaatu ma salaamu yatba'u ala allazi fiina gadan yushaffa'u ginnaaw bu nu sante sunu Boroom subhaanahu wa ta'ala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama lu jaajëfal Seexna al Xadim alayhi akbaru ridwanullahi al baaxil di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fayal nu ko waaye di ñaan bu Seex Muhammadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool ba lim yéene liggéeyal lislaam ak njobootuk lislaam moo àggale ko fu kawe njortam ci barkeb alquranul karim dellu santa suñu borom subhanahu wa taala bim nu mayee ñu dikkaat ci barab bi def ko ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoo doon yëkkati xasiida yi ak ñi nga xam ne ñoo doon teewlu mbooleem kuy digg kàddu gi ñoo ngi lay jaajëfal la sant di ñaan suñu borom mbool ni yiw yi mu mel ni mbokk yi xañ na tomb bu gàtt rek la ñuy indi fàttalente ci ndax fàttali mënta jàkk wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mel ni ay jullit bu nu dajee war na di fàttalente ci seen diine waaye fàttalente ci loo xam ne moo leen di jariñ ci àddina ak ci àllaaxira ndax jamono moo tollu tolluwaay woo xam ne kenn ku ci nekk la nga nekk te muy lu baax boo ca sàgganee tuuti dana la rëcc te kenn ku ci nekk mënu di ñàkk di yëngu ci mbir te lépp loo yëngu fexeel mu doon loo xam ne lu suñu borom subhanahu wa taala gërëm la ndax bi Sëriñ Tuubaa waxee yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi istaxilu wastaxilu bil hibsi wa tilaawa wajtanibu majalis shaqaawa Sëriñ dafa wax ne yéen ndaw ñi bu leen am benn yitte bu dul ak njub waaye ngeen di jàng bu ngeen jàngee li ngeen jàng ngeen mokkal ko waaye ngeen jëfe ko ngeen mooy tandiku jataay yu texee di jataay bu texee nag boo ko bu ñu ko waxee mooy bépp jataay boo xam ne mbooloo dañ fa daje te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala taxul ñu daje fa loola jataay la bu texee di waaye mu wax ne walazimu man la yasaalu abida li rabbihi ila huda wa xaida ngeen taqoog ña nga xam ne duñu deñ di leen xëcc di leen ommat di jëme ci ak njub ndax fa kullu man baadara waxta sixari ilal hudastara waxtal kibari képp koo xam ne danga jóg ci sa waxtu ndaw jëm ci ak njub ne na boo doonee mag danga noppalu waaye koo xam ne danga jël sa ndaw gépp nga foye ko ba doon mag dana néew lool nga am ci la nga xam ne moom ngay sàkku sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala mu mel ni jamono moo toll foo xamante bi def lu baax walla suubu ci yoon wu baax jafe na lool ndax ñi nga xamee ne boo sóoboo ci yoon bu baax ña nga xam ne ñoo lay fakastal ci yoon wi ngir bëgg nga terxiis ba aw feneen day bari lool waaye ginnaaw bu loolu amee nga teg sa tànk ci siraatal mustaqima comme ni nga xam ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa waxee mooy tandiku jataay yuy texe di yi waaye taqoog jataay yi nga xam ne mooy jataay yuy texe yi su boobaa boo ko defee da nga mucc àddina ak alaxira mu mel ni loolu lu mu doon jiital la loo xam ne ngir ñu gën a farlu ci jataay yu mel nii ndax léeg-léeg nga gis ko mu wéet lool waaye nag fekk na booba zahir sa moo wéet waaye baatin ba wéetut kon kenn ku ci nekk jataay yu mel nii war na ci gën di farlu ni ma koy faral di misaale ndax lu baax dañ koo jël dëkkale ko ci benn barab te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lu baax ab jullit moo ko moom fu mu ko fekk na ko jël saay boo fekkee jataay boo xam ne jataay boo xam ne jataayub jaamu suñu borom la subhanahu wa taala ak tudd suñu borom ak di ko fàttaliku na nga jàpp ne kenn ëppale lu waaye léeg-léeg dañuy jël lu baax dëkkale ko ci benn barab man ngaa gis ñu toog fee di def seen daayira nga jàpp ne murit yi ñoom ñooy def daayira bu tijaan dikkee jàll bu laay dikkee keneen ak keneen bu dikkee jàll naka noonu tijaan yi nekk wee def seen daayira bu murit dikkee jàll bu kenn dikkee keneen kenn jàpp ne ñoom rek ñoo ko moom waaye boo sampan fee tey lu ci mel ni ab seena musique commencé dun ne murit moo xewle dun ne tijaan moo xewle dun ne kenn moo xewle day fees dell dell dell lool nag li ci gën a yey mooy jullit ñi ñoo ci gën a yey kon fépp boo fekk lu baax na jàpp ne yow ca nga bokk kon ginnaaw boo xamee ne bu ñu jiitalee loolu ñu dikk tuuti ci fàttalente lenn ci li nga xam ne moo war jullit bi ci ay xàq yoo xam ne suñu borom daf ko koo teg mu war koo sàmmonte ak moom sàmmonte ak ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ndax bi suñu borom subhanahu wa taala waxee ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an bi suñu borom waxee ne na ma jaamu te bañ maa bokkaale ak dara lam ci teg mooy rafetal seen diggante ak seeni wajur lam ci teg mooy rafetal seeni bokki dëkkandoo kon dëkkandoo lu ama am solo la loo xam ne kenn ku ci nekk war na ci farlu wañ ci war war ci bàyyi xel loolu moo tax yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bokk na ci sàmm ak dëkkandoo nga fexey mu mucc ci say lor al muslimu man salima naasu min lisaanihi julli dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne jullit yi mucc nañ ci lori loxoom waaye mucc ci lori ay jëfam yépp yoo xam ne yu mën a lor bokkam jullit la loolu kon dana yell kenn ku ci nekk bàyyi ci xel waaye bañ di tongonte wala tabaxadu bu leen di merente wala taxaasadu bu leen di iñaanante kenn ku ci nekk gis sa moroom loo la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom ndax kenn di ci yéen du gëm loolu ni lam bëggal boppam dafa ko yéene moroomam kon loola bokk na ci kon wala tadabaru bu leen di wanante ginnaaw itam wala taqaataxu bu leen dogante ku la jokk ku la dog na ko jog sil man xataa la wax koo xam ne buy séddale boo seet yow tegg la yow buy séddale commencé ca moom loolu mooy digg dëgg melokaanu jullit mu del wax ne na ngeen nekk ay bokk teyit bañ di tongonte bañ di dëddoonte laa yaxillu li muslimin ay yaxjura aqaahu fawqa salaasa léeg nga gis ñaari jullit yoo xam ne dañuy dëkk am ay weer walla lu këpp loo xam ne dañuy tongonte duñu tuddante yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yellut ci benn jullit mu tong moroomam jullitam lu ëpp ñetti fan tong mënta ñàkk su fekkee ne jar na ko waaye nag bu mu ëpp ñetti fan kenn ku ci nekk la ngay ngay tong sa mbokkum jullit bu mu ëpp ñetti fan del ne bokk na ci li nga xam ne mooy tax ngeen mucc ci tongonte bala nga dëkk fenn na nga xool ñi ngay dëkkal nan la ndax dangeen déggoo am déet aljaaru xabla daar dellu wax ne bala nga suubu sax ci aw yoon nanga nga wut yóbbal bu mat sëkk nga xam ne yoon wa doo ca loru ba sa diine di ca loru kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy mën a musal jullit euh, dellu wax na wax na ne xaq yi nga xam ne moo dox diggante jullit bi ak moroomu jullitam juróom benn la ba ci njëkk mooy soo doxee ba daje ak moom nga nuyu ko alquran daa wax ne wa isaa xuyitum bi taxiyatin fa xayyu bi ahsani minha aw ruduha su ngeen su ngeen su ngeen di nuyoo nit ki bu la nuyoo na ko fay nu gën a rafet ci na ko fay bu la nee assalaamu aleykum nee ko waaleykum salaam wa nga ne ko waaleykum nga ne ko bu la nee assalaamu aleykum wa nga ne ko waaleykum salaam wa wa barakaatu loolu mooy bi ahsani minha aw ruduha ngeen ngeen ngeen wax ko ngeen delloo ko nuyu wala ngeen wax ko li gën a rafet loolu bokk na ci li nga xam ne mooy àq yi nga xam ne mu war diggante jullit ak moroom jullitam bokk na ci bu la wooyee ci loo xam ne luy indi aw yiw la nga wuyu ko ca lépp loo xam ne daf la caa woo te muy jur aw yiw nga wuyu ko ca waaye bañ koo tàngallu bokk na ci itam saay bu tislee wax alhamdulillah nga ne ko yar loolu léeg-léeg nit ñu ko lool waaye saay bu làngeeg sa mbokkum jullit bu tislee dafa war a wax alhamdulillah bu ne alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah waaye bu ne alhamdulillah delloo ko yar yarhamukallah da danga am àq joo xam ne joo ko war a jox la te joxu ko bokk na ci itam bu sàkkoo ci yow ak laay biir nga laay biir ko te jëm yàlla ki tax ndax a addiinu nasiha diine laayanti biir la bokk na ci itam su fekkee ne dafa faatu dafa dafa tawat nga dem seeti ko seeti ka nag seeti ko feebar am na ay teggin am na ay teggin bokk na ci teggin ya boo demee bul fa yàgg tey bul fa wax waxi àddina te it bul fa wax waxi ko xam ne lu dal lu kii mu bàyyi koo fi moo dal kii loolu bokk na ci teg teggiini ki nga xam ne moo fee moo faatu bokk na ci bu faatoo nga ànd ak moom ci ci ak janaasam dem gunge ko gunge aji faatu yool bi ci nekk dafa bari lool loolu bokk na ci bokk na ci itam su xamee ni dafa raflewu nga wodd ko raflewu nag yaatu na du caagen raflewu day aju ci ñàkk ñàkk am yére yu jot yoo sol waaye raflewu yaatu na lool boroom xam-xam yi dem na ba àgg ba ci ki nga xam ne dafa sax xamul lu baax nga digal ko kooku mel na ni yow ci saayir danga koo wodd ci baatin danga koo wodd ndax ki nga xam ne dafa xamut nga gindi ko ci teg ko ci aw yoon kooku dafa mel ni dafa rafle yére yu mu sol nga Euh, wodd ko ci ay yére yu jot yoo xam ne moom lay sol bokk na ci itam su amee aw yiw nga ndokkeel ko waaye su ko musiba dalee moo xam ne mu metti la nga dëfal ko loolu bokk na ci xàq yi nga xam ne moo dox diggante jaam bi ak moroomu jaamam kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëgg a yëkkati di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal nu ak dégg defal nu ak topp ci bar Seex naan Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey